waaye yéen a ko dégg waykat bi moo ko wax moo ni jéey ñëw na te saa bu yegsee ngeen xam ne doomu géejawaay bi yegsi na mbokk yi kooku kañ la woote ñu ne bisu la 14 novembre 2021 mbokk yi la 14 novembre 2021 arène nationale dana yëngu ndax dañoo dugg Pikine sar ba biir ginnaaw lay jël doomu ginnaaw lay ne dañ koy sargal kookoon la ne honorable député la bataan gaynde gi ki teewal Sénégal ba xale Sénégal bëgg ko ki teewal senegal ba senegal ne ko kaay yow yaa ñu doy dañ lay jël teg la sunu penc ndaw réew kookoon la ñu ne honorable député Mame Diarra Fam askanu Sénégal gaynde gi la ñu tuddee bis boobu nga xamante ne moom la ñu boole ñaari gaynde ah jëy def nga lu rëy da ngaa dugg géejawaay jël Jackson boole kook naaru sokaas mi nga xamante xale buy jug moom moo la 14 ci arène nationale jëy a nekk jël fa ki nga mooy pôle bu daaru boole kook demix bu bàcc seeraas booy bar ñi mbokk moom la ci boole ak nga xam mooy bastonnaire waaye onge bu yoof moom moo ci dajaak nga xamante mooy mbër laay mbokk yi ñii la petit ba moom moo fay daje ak Mbacke Faye mbokk yi yaa xam bawal dina fa laale ak Ibou Sosa fils de Samsam moom ak Omre ñoo fay daje Zera Thiaray moom ak Aziz Lo ñoo fay daje Rëm Junior dina fa daje ak ki nga xamante ni mooy Dal Bondé waaye Pape Ndaw moom ak Sores ñoom ñaar ñoom ñoo fay daje mbokk yi bisu la 14 bis la boo xamante ne ni lamb dootu ko fàtte ba tax na képp koo xamante ne ni amateur nga ñi ngi lay woo ci bis boobu ndax jëy production bu yegsee Abdoulahad Ndiaye def ay combinaison ah, mbokk yi ngeen xam ne lamb dekki na promoteur yaa ngi bu lamb neexee ñoo ko neexal ciy jéey jéy ñëw na. jéy ñëw na. jéy asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi amaat mbégte contentement yi ñuy suivre sur Kewel Info kon nuñ koy defee à chaque fois di nuyu ki nga xamante ne moom mooy suñu sëriñ Mawlaaya Seydi Mouhamadul Moustapha Sy di ko ñaanal yàlla yàlla aar ko sàmm ko yàlla may ko gudd fan ak wér moom ak bépp njaboot bi nga xamante ni ah moom la yor ci daaytu Moustarchidine wala Moustarchidaat di ñaanal bu baax a baax suñu capitaine suñu capitaine muy maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum maam Babacar ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax kon niñ koy defee à chaque fois jotaay làmb te nag ñu ñëw fii si Tëngéej ah, jokkul ñëw set champion boo xamante ni nam namoon nañ ko lool gannaaw ba mu amee combat am digganteem ak ki nga xamante mooy Lac Rose combat ak ak neex diggante mag États-Unis loolu yëpp bëgg nañ see ñëw ah, di ko bégee moom suñu xarit la ndax heure bu ñu ko acca rek mu ne acca man moom dama koo lakkal moo tax su ma ko waxee rek lu leen may wax <laughs> Mbour maa ngi lay waaw ñu ngi sant yàlla di julli si rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam e, di sant suñu ñaar waajur di sant suñu sëriñ Baye Karim Mbacke di ko ñaanal wér ak jàmm salaam e, di ñaanal kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi. di wax ñi nekk hôpital maa leen di ñaanal yàlla fëgg seen bopp ba ñu delluwaat seeni activité di ñaanal ñi nekk prison aussi yàlla dimbali leen bañ génne nekk seen activité di ñaanal nag ñi nga xamante ni ñoo ñu jiitu ñu leen ñaanal yàlla yërëm leen xaar leen àjjana si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. am na solo ko dem ko xëy woon sànq rek doy si wetu heure ménage ndax yow sama koñ nga takkee. ba xam xam sama xarit nga ba takkee sama koñ <laughs> dina ñaan yàlla yàlla may la si njaboot gu barkeel ci barke Seydina Mohamed. amiin waaw yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla nangu ñaan waa yëmbal laa takkee maa ngi nuyu waa yëmbal yëpp rawat rawatina sama neex sànq maa ngi koy wax ci nuyoo bi ama neex diggante ama neex ak États-Unis lan la. non dara damay am combat rek dem États-Unis dem entraîné ji moo paree ma ñëwaat. loolu kese la dëkkuma États-Unis fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yoro dañ ma may rek ma dem pour entraîner pour ñibbise loolu kese la. Amanekh dafa am business bu muy liggéey foofu ñu dama force yooyu ba ñu ne léegi da liggéey foofu quoi raison de plus moo tax mënoo dem tey soo añee soo ndekkee fii añee États-Unis non non macha allah loolu amul la liggéeyu moo fa de damay dem daal entraîner si saali moo xam Las Vegas maa ngi nuyu sax sama copain moo gét encore une fois maa ngi koy nuyu di ko siyaar ak SFM di ko gërëm ndax nit ku baax la may dem entraîner rek préparer samay combat dem def box musculation dem si parc yi di daw am physique dallu récupération bi moom yóbbu foofu ak lekk bu baax bi loolu kese la après ma ñibbise préparer sama combat loolu na dëkkuma fa fii laa dëkk Sénégal waaw. ama neex sa combat ak kan nga gëj booy bawal bëre. Euh, 2002 2018. waaw. ama neex amul combat. am naa combat kañ. non sa combat ak ci ñëw ndax bëreewoo ko ba tey ndax tey mbër bu daan compétir ama neex saison bi ak lu mënti xew da daan bëri. waaw mais xam nga Covid dafa am. bi ma bëree booy bawal toog naa un an bëriwuma mais terewul damay voyager nekk si samay entraînement préparé donc moo gën tëgg suñu combat maa Lac Rose jox ma avance ma signé mu signé. combat boobu yàquwul ndax man maa ngi koy waajal ba léegi moo tax ma delluwaat États-Unis laa nekkoon prépare que deux mois quinze jours yàlla def ko ñu ñëw ñibbise ku fit am ñu renvoyé waat combat biñ ko renvoyé et ñu ñëwaat ñu xam ne saison bi lee mu ibbi ñu delluwaat entraîné ji après ñëwaat bi ñëwaatee nag ñu ngi toog di xaar pour am date pour bëre. ñu gis sa diggante ak Lac Rose ñëw nga ci yéen ñaar bëre woon nañ nga daan ko. ama neex yeneen adversaire nekk fi sa euh, diggante ak Lac Rose yow yaa def choix bi wala moo gét moom moo la ko proposé. non euh, man waruma woon a bëre Lac maa Yékini Junior ñoo a bëre man ah Yékini Junior woon a bëre moo gét moo ko woon a tëgg moo gét noonu la si sonné sax combat pour mu taxaw. bon yéegaax di wàcc yooyu na ba combat bi yàqu moo ne ma comme te combat ba la yàqu na Lac moo fi ne ma ne ko ah jox ma ko ma bëre man bër mbër laa damay compétir ci la ma ko jox fay ma ma bëre jox ma avance. préparé combat bi. est ce que nekkul woon ni Yékini Junior cachet bi ñu ko proposé woon ak cachet bi ñu ko fayaat du doon benn ndax moom d' accord woon na yow ak ama neex lañ ko waxoon ba mu d' accord ba wax ak ki nga xam te ne moom mooy manager am est que nekkul ni cachet bi ñu ko waxoon moom moom bi ñu ko waxoon ak bi ñu ko fayaat est ce que nekkul tamit cachet ci diggante cachet yooyu moom moo tax ba réew. non non Mbaye Diagne sama manager mu ngi may dégg. Yékini Junior tamit Mbaye Diagne Mbaye Diagne mooy manager. waaw mu ngi may dégg. ñoo fay ko fay ma mu dem ba si digg bi ne moom nekk fii di ñii di oote bëccëg oote bu guddi nanguwul jël téléphone après ñoo bàyyi combat bi. est-ce que nekkul lu ko moo gën wax ak liñ ko wax. Euh, ah. non non looloo am rek li ma la jàppal loo looloo am ndax ma xam naa lépp looloo am. Mhm. nanguwul nag ñu dem ba si digg bi nag mu bëgg a nangu fekk na promoteur bi nag moom gis na leneen noonu la demee. Ah. Mhm. Yékini Junior moom mi ñuy dégg. xam naa ne incha allah moom dina ci indi ay leeral moom moom moom su ma nee dina ci indi ay leeral dina ci indi leeral te yow ba nga amulee ki nga xam te ni moom mooy euh, euh, Yékini Junior gis nañ ni sa diggante ak Moussa Ndoye gars yi ñu ngi ci doon wax ba yow ba ne yow yéen ñaar kenn ku nekk jëli woon naa leen kenn ku nekk na pare naa pour bëre ak moom donte yow lébu nga moom muy lébu ndax gis nañu koyen ci lébu la. nga ñëw assisté ko jóge États-Unis ñëw ñëw stade assisté ko yéen lébu yi da ngeen a am benn lébu boo xam te ni comme par exemple wala lébu yëpp duñ benn. non lépp benn la sax tefes gi lépp benn la mais àddina mënoo xaritoo ñëpp mënoo nekkaax ñëpp ay xarit mënul ne àddina yàlla rek a sàkk def ñu ay jullit def ñi ay chrétien ab àddina lépp yemul yemul quoi yàlla daa bind te yemalewul lang la def jigéen def ma góor kuwen si sama rakk la Bargny ak Tëngéej benn la Yaraax ak Tëngéej mbaaw lépp benn la di gërëm sax fukki penc ñaari ñëpp dañu ay lébu mais dafa am ñoo xamante ni yàlla dalay xéer yaa ñoom ngeen nekk ay xarit man a ax Moussa Ndoye ay xarit ay lébu lañ mais duñ ay xarit bu ñu làmb boolee dañuy bëree mais li tax ngeen ne ay lébu ngeen yéen lébu yi doon bëri ci biir yàgg. moom dañ am règlement de compte. est-ce noonu la demee combat bii nga xamante ni moom la bëree saa kees bu ma juumul maa moom na woon a mu dem jëli saa jëli saa kees. xaw ma de vie la du si dugg. contacté nañ ko. dugg vie la ndax man du ma tooñ dama xaw a weexu dunga moo tax ma tooñ du dugg si ay détails ndax dama may mbokk dëkk si dëkk bi. lu ne maa ngi koy dégg ma jéggal naa ñëpp. comme lu ne la. xaw ma eh, waaye muñ la sunu borom àndal te ab jullit laa dama war a muñ. lu ne yaa koy dégg moom fii luñ la fi wax rek sa diggante moo gën kese la. non man garaaw lu ma waay wax amul problème moo gën nit ku baax la baax laa ko xamee baax ku doya sa baax man lu moo jëy nit du xaalis du dara ma rek suur naa dem ma tey doo ko ñëw mais dama ne la. nit ñi leen bàyyi di wax loo xamante ne wóorul leen soxna si fii loo wax si àddina di nga waxaat te bàmmeel xat na xat goo xamante ni lëndëm na lëndëm nga xamante ni lëpp looy wax si doomu aadama war nga xam te yàlla dëgg la bëgg dëgg rek moo fi ne dara nekku fi. ak ni nga amee dignité ak ni nga nekkee responsable tamit comme sa diggante moo gis ñu gis ne fës ci fës da ngay gis sax ñu bari dañ naan ama neex da koy dunguru wala nangam am na loo ma leeraloon. Mhm. sa diggante yéen ñaar boo wane ay photo est-ce que tamit loolu moom moo tax. waaw mais xam nga fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla sàkk ñu mooy sunu moom la ñuy roy. Sénégal boo àndee nit tey bu ñu àndoon léegi maax yow si mbedd mi ñaari fan ñu ne yow dama lay doxaan. yàlla mooy sàkk doomu aadama noonu moo gën sama xarit la 2014 lañ xamante mu jig ma teraanga ma jikka teraanga sama nit la nit ku baax la boo ko jégewul doo xam ne nit ku baax la mosuma def lu ma métti nit ku baax la li am importance mooy nit dangay maanu da ngay loolu rek laa am su may wax ab jullit du tooñ te man ab jullit la xaw ma kañ la xaw ma kañ la naka la mais yàlla ma yàlla fekk yàlla bu su yàlla di jël ay ñaan sunu borom mu fekk ma si lu neex sunu borom wax mbooloo mu jullit ndax yéene néeg la borom moo si finaan awma kenn programme di gërëm Mame Balla ma wan di gërëm May Ndiaye am di gërëm ministre sport Matar Ba di gërëm seeri juuf di gërëm Souleymane Ndoye di gërëm samay nit di gërëm Matar ak paate paate booy maa leen di gërëm di gërëm waa Jokkul Njaayaan ñëpp ak fukki penc lebu yi ñaar yëpp gërëm sama ndey di gërëm sama baay xam nga soxna si la mu ëpp importance loo am defal sa yaay wala loo am defal sa papa loolu waaye wax man aaron kéer man noonu laay dundee sama laay. Lac Rose wax nga ko sa diggante ak Yékini Junior la woon Moussa ndooy ba muy jël saa Thiès si yéen ñaar la woon yow tey boo gisee tey gars yi du mën a sax comme da amoon est yaa teg sa bopp léegi foo àggul pour question que ni ci affaire cachet ci affaire adversaire parce que ama neex boo woon ak bii nag nañu wax dëgg dafa am différence parce que a neex yow mënuñu concevoir nga ne mbër nga yow mënoo toog fii ndax kii. Ah. bàyyil mënoo toog fii man fii laa juddoo fii laa màggee fii laa déggee daali yi États-Unis xam nga la moo fa yóbbu entraînement bu mu amul entraînement dem naa dem vacances un mois walla un mois dix jours ñibbi si naa loolu kese bu ma gisee lu ma jaral ma bëre bu ma gisul lu ma jaral ma toog dem géej samay gaal yi loolu kese la. mais sa combat ak Lac dañ na ñorul woon ñorul parce que am na ñeneen ñu fi nekk. parce que proposé nañ la fi Diène Kairé. am neex nga ne ah. non même tuuti man du ma mbërëm 4 millions wax day leer bi ñu ma proposé Diène Kairé maa raw Diène Kairé fuuf si làmb maa ngi koy nuyu en passant sama rakala mais man du ma mbëru 4 millions. comme léegi nan ko rawee. waaw non. mais soxna si yow tamit da ma bëgg a posé loo xamante ne yaa ma gën a xam. maa jën kër bokkuñu catégorie. mais dafa daan Modou Anta. waaw mu daanee Modou Anta bokku maa moom catégorie. ñaar seen combat ñi ko non ma ne attends. dama bëgg nga déglu ma bu baax ku bëree Ama Baldé bëree guy gi bëree euh, nu mu tuddati booy ñaar mais bokku maa ñoom catégorie mais lamb que dépassé wul. non non bi may bëre bëruñu kase bi ma téye ñoom téewuñu ko nga oo ma ne jën kay naka jëndee mburu chocolat. <laughs> nga <laughs> gis nga dafa am loo xam ne bu la taxee jóg. Ah. da ci def fulla ak fayda nest pas man. man du ma du ma du ma du genre boo xamante ni man dama xiif wala dama mar walla may def naka sulu noonu déedéet. man lépp sama ngor ak sama dignité ndox man bi may juddu yàlla daf ma sàkk wàcc ma si dunya tàgguwu si kenn. li ma war a am avant may juddu yàlla def na ko si man bis mu war a génne àddina yàlla def na ko te nit xamu ko li mu war a dund yàlla def na ko te doomu aadama xamu ko kon man sama wërsëg rek laay jël mais man du <laughs> sama gaal bu demee géej ñetti fan ñeenti fan ma am lu ëpp 4 millions kon mar naan du tax ma naan pëtin ndax man dama am ay mbokk ba pare bokk ci famille bu riis kon man du ma du ma du jaay sama askan ma def loo xam ne lu lu luñ may xeebee noonu la demee. est-ce que nekkul tamit combat bi dafa xaw a nekk risque d'une part ndax tey kon euh, ñu fay la xaalis boo xam te ne jaru ko kon li nga wax yaa may dégg fay la xaalis boo xam te ne jaru ko mais bare bañoo bëreek ak Diène Kairé mais cachet bi ñu la fay moo baaxul. loolu la wax na sax bu ñu ma fayee lu ko jar. kon donc leer na ah, beneen bi mooy am a neex ba tey Yékini euh, tey euh, am na yeneen mbër yu fi nekk est-ce que tey bu la sa diggante ak Mo Gates yéen contrat moo leen lié woon. nekkul ni. mais lan moo tax yow. Mhm. jël moo gën rek. déglu ma parce que moo tëgg sa combat xam tey dafa tëgg sa combat. da nekk ñun wóoruñu. Mhm. ba xam si ndax dégg nañ xëy rek benn un bon jour ñu ne moo gën mbër yi mu tëggoon ñëpp libéré na leen. très bien léegi loolu lañ bëgg nag nga expliqué nga leer ah. man si moo gën laa jógee te moom sës boo xamante ni ah gisuma sama beneen morom bu sës si moom. te bi ma fay jóge bu fekkoon ne dana combat yi amatul moo géet man dina ma wax loolu mais man waxuma loolu waxuma dara combat yaa ngi fonctionné ba léegi ndax contrat lañ signé te ñii di wax ñëpp maa Lac Rose leen boot. yow ak Lac Rose yéen a boot. ñun ñooy bi. kon loolu benn journée benn journée la lépp n'est-ce pas ñii si moo gën taxawal yëpp maa Lac Rose noo leen boot te Lac Rose waxul man waxuma. am na ñoo xam ne dañoo yàkkamte seen live fii yàlla mooy dogal wax mu àgg sunu borom rek la wóor. mais dafa moom may déglu. wax mu àgg dama lay li ma lay wax nii lu am importance la bàyyi si xel. dama ne la wax mu àgga sunu borom rek la wóor gis sunu borom bu ko neexoon émission bi du àgg. léegi tolof tolof am. mais sunu boroom moom rek moo man moo xam li moom rek moo xam lii am suba. est-ce que nga. kon nañ dal te tey nga xam ne tey di su ndox la gën a baax mais si nit la gën a yemb. mais parce que tamit da ngay gis moo gét ñi mu tëgg am na ñoo xam te sax ñoom la dénkoon affaire yi nee nañ déggatuñ ko xamatuñ si lu mu nekk bu buñ ko woyee du ko jël xam nga tamit nit. Ah. bul sikka moo gét. non sikkuma ko comme yow xam nga yow yow xaritam nga noo ameen ama neex yow it xam nga man. léegi da nga may déglu ma nit ma wax la léegi da nga may déglu ma pare ma ma àggale tamit ama neex xam nga tey man moo xaw ma ko yaa may dégg yow sax xarit la yow la tëgg tey yow yow yaa mën a wax ci li nga xamante ni tey moom mooy ci place pour ñi ñi nga xamante ni comprendre ñu wala ñi mu tëgg mën a rassurer ndax tey bu ñu xëyee rek ñu ne moo ñi mu tëggoon xam nga yow moo gét jàppoon na jour yéen xamuñu ba tey lan mooy. da ngay déglu le 22 août la ñu woon a bëre. ba moo fay CNG def lépp ñu war a bëre le 22 août le 22 août avant muy jot. des na 15 jours si laa ñibbisee jóge États-Unis ñëw di préparer sama komba une semaine lañ si teg combat bi Covid bi dugg ñu renvoyé ko renvoyé combat yëpp kon moo deful dara. moo defal naa moo man mii doon xaritam pour ma oo ko jot ko sax bokkul na xamala moo tax man New York laa ne moo mu ngi Las Vegas te Las Vegas ak New York rawante nañ 3 heures de temps Las Vegas instant bi mu si fajar n'est-ce pas yàlla kon dafa am loo xamante ni maanaam nit il faut mu dal il faut mu teey mu amul problème boobu moom mu tëgg combat fii wàññiw ko dara ndax lii du ba business man maa tax mu dugg ci. Ah, moo tax ñu naan mënatu ko sax. dafa nit ñi nag nañ wax lu leen neex barki salaate fatiya maa toog moom daaw naka man lenn rek nga mën a bëggale si àddina mooy nga tëgg combat ndax nu làmb lañ am nga suqali làmb. billaahi wallaahi talaay mu def ko tey bu ko neexoon xaalisam mu joxe avance nii kon du ko joxe mais ku ne jox na la avance nga téye. kon wax ji jaru woo dafa nekkoon si benn projet boo xamante ni léegi daanaka pare na loolu moo taxoon mais man pour ma oo ko jot ko sa problème la te du ma ko mere nit ko baax la dañ ko ñaanal mu àggali mébét bi man loolu rek laa am si lu may wax am na solo kon bu la promoteur contacté woon pour joxaat la beneen bër tànk bëre woon moo gét du bëre. non non ndax man sportif laa benn athlète laa dama may moo bu ma waxtaanee ñoom ñoom luñ ma wax rek ma def. leer na euh, beneen bi mooy MMA gis nañ tamit am ñoom Malick Niang def naa yow sax yaa ngi ñoom ñëpp ñu ngi fa pour préparer tamit seen MMA am na boobu moom bokk bokk nga ci wala. waaw MMA bi si laa bokk mais moo dafa amoon leneen lu muy xam nga moo nante la du ngaaka peut-être dafa am leneen lu muy xam nga dañ ne chaque chose à son temps lu jot. ah àppam mu ngi ci ña nga États-Unis ña ngay préparer bi waaw. yow yàkkat la. man manaax birisilin la. ak birisilin. waaw mu faas. waaw loolu la quoi yaa ko tëgg sax. tëgg comme yéen ñaar kee di dëkkante. waaw boobu nañ ñëwoon rek doon def benn affaire bu ndaw rek pour jaay combat bi yooyu nu quoi mais ñu ngi si. Ah. waaw yéen MMA boobu yéen euh, bi nga xamante ni moom la Bombardier ak ñoom Reug Reug di def wala yéen comme yéen lutte bi ngeen def fii ngeen yóbbu foofu wala. bi Bombardier di def moom lañuy ñuy def. Ah. Mhm. moom la ñuy def. Ah. Mm-hmm. est-ce que tey MMA boobu noonu yéen pour ngeen def ko yomb ndax gis nañ ni tamit ñi koy def il faut que ñoom ay coach yoo xam ni ñoo leen ndax parce que MMA ak lutte simple. si États-Unis am na lépp. mais yow am na lépp. loolu daa lépp ak tamit est-ce que yow yaa ngi koy entraîner tamit. déggoo li ma la bu ma la waxee kon kay yaa quelque chose. am mm-hmm. bi ngay për bëre Sénégal. boo demee foofu boo leen tëgalee vidéo yi sama combat booy bawal photo yaa ngi nii lépp si si man coach bi dama ko wax nag kii laay bëreel lii lay def mu xool ko travail ma loolu ba ma mokkal ko ñëw si papa Yada maa ngi koy nuyu en passage di ko ñaanal wér gu yaram ma fanu gudd bi mu ñëwee mu tàggat ma si loolu bu baax combat matul une minute noonu la demee waaw. di ko bëggee waat ah, bu baax a baax ndax xam nga tamit. tey boo bëggee changer sa lépp nga changer. États-Unis waa dara salle musculation yi macha allah. Ah. boxe bi macha allah physique bi macha allah médecin yi baax na lépp dañ koy xool lekk bi baax na da ngay xool li nga xamante moom àntal sa xol nga jël ko li àntalul sa xol nga tekk na rek. dina bëgg waat nag bu baax a baax. boo gisee li tax ñuy laaj muy dañoo bëgg a xam parce que tamit xam nga tey ñun. dañuy dañoo war a chercher tey ku ci mel ne ama neex am na foo xam te ni moo fi gën a mën a placer pour expliquer ñu ñun ñu comprendre moo gën ñuy wax loo xam te ni tamit amuñu ci benn information waaw c'était juste ça beneen mooy ama neex yow da nga wax benn wax ju rëy nga ni nga ni Boy Niang moom moo dàq bëre Tapha non si. lan moo tax nga wax loolu. non ma ne yow loolu wax naa ko na passé na mu si laa. non lan nga wax parce que tamit. soxna si yow yaa ma gën a xam na boo Niang moo daax a bëri Tapha Tine. mais loolu foo ko ko daax a bëree. yow fan nga teg loolu li nga. bëree tegu ma ko fenn déedéet moom moo ko daax a bëree. mais moo ëpp doole. xamal ma la am na ay qualité nag mais bëri yi bokkul nit te da ngay nangu faraluma si kenn mais dama ne la Boy Niang faraluma ak moom Tapha Tine moom mais dama dem wax danga may laaj ma wax leen li nga xamante moo gu làmb boo ñaa moo daax a bëre dëgg la. mais fan nga teg ji xam nga moo fi daax a bëre. Ah. Eumeu ak a bëre si làmb ji. foo teg loolu. non dama xam rek ñoo daax a bëre si làmb ji li ñu wane kañ moom laax mbër laa damay nangu lii da ngay nangu dogal <laughs> noonu la demee. Balla Gaye ak Eumeu Sène ñoo daaxal bëre si làmb ji façon bëre yi bokkul. daa bokkul rek loolu kese bokkul waa Tapha Tine ban avantage la pour mën a daan euh, kii. Tapha Tine mu jéem kaa jàpp xeexaax moom jàpp ko daan ko benn yoon mu jeex. Ah. waaw mais bu dee Boy Niang yow yéen ñaar bëre woon ngeen. Boy Niang day dawloo Tapha Tine rek. du naka dawloo di ko dóor ay arrêt du gauche du ko si garam jaxase ko génnaat Tapha Tine tey bu mu nelaw chaque instant na bàyyi xel ak garam ak garde te bañ a maye dara loolu moom. fi bandi la de il nga yeewu de waaw ah, kañ bañ laa gëlëmal si gàllaaj nga mën a xool li ngay xool xam waaw te defee ah mooy loolu de. Bombardier ak Bombardier Balla Gaye Balla na gaaw rek. avantage bi ci Balla Gaye mooy mu gaaw. Mhm. Ah. su yéexee. non na gaaw rek laa la mën a wax de. Balla na gaaw si li muy def. bu mm-hmm. mm-hmm. fekkee na gaaw si li muy def rek. Mm-hmm. da nga may laajal benn adversaire bi. Ah. ci bu dee ci côté Bombardier. Bombardier da xool bu baax. da xool bu baax. luy ñëw mu jëm ko capté. Alioune Seye ak Zos. Alioune Seye Zos combat bu neexee ngoogu Zos daa bëgg a jógaat te Alioune Seye daa bëgg a dem. làmb la de. waaw avantage. Aliou Seye moo avantage. ci comme nan ci bi waaw si bëre bi ah compétir bi muy compétir chaque jour. ama neex dina bëre ak Tyson 2. déedéet. lan moo tax. ay mbokk lañ. yàgg Forza. Forza. déedéet. tax doo leen bëri yéen ay mbokk lañ. mais ama neex yow yow est xam nga ne yow yow ñi dul bëre bari na de. amul problème ma jël sama wërsëg rek abal leen. est-ce ah, yow làmb fa nga ko tegoon ak léegi fi nga ko teg am. kii li ma moo gën a raw ndax damaa màgg léegi moo tax mu amaatoon combat nga bàyyi àddina. barki yonent bi daa si def loo xamante ni rek maa sa déedéet. ci côté bëre ci côté fit ci côté. waaw wóor na rasulullah. billaahi wallaahi talaay ma yàlla may fonu gura wér gu yaram. dafa am benn lu garaaw laa la expliqué. sama booy bi bi mu gaañoo ba léegi amu combat. muy Papa Yade. te image boobu noonu xaw ma kan laay am si laam mais na pare. ndax lan. kooku lay bëri la. boo amal combat Papa Yade ngay bëri. kooku féete woon na ma foo xamante ni soxna si mu mu la ko wax daf la wallaahi ba tey papa ya dafa des ci xolam. mais ndeysaan àdduna ama neex noonu la. Mhm. xam naa loolu. dafa am benn rôle bu mu doon joué si yow. Mhm. kooku daa bokk ci man. kon tey daal adversaire booy bëree rek na xam ne ama neex bëreewul mais Papa Yade moo ñëw. billaay walaay tax daal rek moom laay seedal. fekkee ko ni moom moo tax lu bari nga xaw a mel ni ku xaw a mel ni ku dëddu làmb. non déedéet sax mais xam rek nit di nga nekk moom mu jege la trop yéene la kooku damaa yéene woon daal ndax noo juddandoo fii nga dénk ma ko mu doon xale maa tax mu dugg ci làmb kooku samay gàllaaj lay takk buy bëri. say gàllaaj lay takk. ñoo koy ñaanal. kooku daa soroon si man daa bokk ci man. est-ce nga gën a xam importance am ndax gis nañu ama neex même buy def interview sax foo jaar mu tudd Papa Yade. dañ bàyyi noonu. ama neex loolu ak àdduna ñoo yem ah, di ko ñaanal nag bu baax a baax foo mu tëdd dàqal ko foofu foo mu jógee ndeysaan moom tamit nekkul na ku baax koo xam te ne man suma xarit la. ndax dañ doon waxtaan ndeysaan su ma juumul ba mu feebaree sax yow laa nga ñu waxtaan ak ba mu nekkee réanimation loolu yëpp daal mais di ko ñaan rek ndax àdduna moom noonu la demal maa ngi ñëw la ñun ñëpp dañuy dem di ñaan yàlla yàlla na yeex rek. daal la yi ma ko jox bi ma jógee États-Unis moom la defee choc. billaahi wallaahi taalaa kon nga xam ne ko daa bokk ci man. mu am fi arrêt arrêt moom liggéey loolu. Talla yi moo jógee ñëwee moom la defee soog. billaahi wallaahi talaay. maa nga sàng jébal ko borom. barki alxuraanu karim kooku man rek la daan déglu si àddina man maanaam defal mu def maanaam bàyyil mu bàyyi. ba yaayam mu ngi may dégg maa ngi koy maasawu yaayam ku baax la moom tamit fu ma saana yëngal ni sa yaay ji man lay woo damaan saraka woo ko nga wax billaahi wallaahi talaay. papaam moomu jàngal géej du bokk jokkul njaayal gi dund loo xamante ni boobu kenn xamuko kenn ku ko xam tey te kattan yi nga xam Papa Yada. billaahi wallaahi te dugal ko ci làmb. booy ay moromam di bëri di dem. sax xel billaahi day bàyyi loolu gannaaw. di la bëggee waat bu baax a baax ah, li ñu desee ci waxtu sax mën nañoo wax ni ah, jeex na parce que tamit yàq nga suñu émission bi yëpp awa neex ndax ndeysaan luñ naan question mooy indi question rek mais bëgguñu woon sax nga tuur ay xéewal ndax tamit ba ñuy ñëw xamuñu ko woon boo gisee sax moo tax du ma bëgg sax tudd Papa Yade suñuy interview mais nag xam ni que moom. dangay wax sax te doo xam nan moo tax ngay wax di la waat nag bu baax a baax di ñaan yàlla yal na la yàlla may xolu muñ mais Quench Double Moteur seen combat bi nii ni mu jeexee nii yaakaar woon nga ko. Quench waaw xam nga Quench xale la quoi te en plus Quench ma entraîneur am daan nañ daje nag di waxtaan di entraîné mais li jël si poids daa bari. poids am dafa bari. bu oyofoon tuuti du yàgg ak kooku. kon poids bi mu handicapé. waaw moo ko handicapé ñoom ñaar ñëpp poids moo leen handicapé mais Quench moom bu amoon tuuti rapidité tuuti rek kon du du du du du du du du du yàgg ak kooku. poids ah, ah. même boo ko jëlee sax da nga ko war a àttal ñun papa yaa da bu mag loolu la ñuy wax sax. dama naan jóge États-Unis indi maas mais deux semaines day dindi lépp bàyyi maa sama doole bàyyi sama physique bàyyi maa sama force loolu quoi mais boo diisee yenn action yi doo ko mën quoi action boo tenté rek sa adversaire da lay bloqué da ngay xam day yéex quoi te bu dee da ngay sàcc na waroo gaaw waroo yéex da nga gaaw loolu moo ko empêché rek mais xale la mu ñaanal encouragé ko booy bu baax la man moo tax keroog maam cër bi mu ma jox moo tax ma dem ko. ndax àddina moom ki la yëg rek moo la sonal soxna si kaay ma la benn affaire seede yàlla ma ne ko li nga takk ni sa adversaire da siy jàpp dindil morceau yi nga takk élastique bi wala nga lëmas ko si élastique bañ hmm. te li mu wax moom lay def billaahi kenn la woon sa man taxaw ci sama doom la daa jël lépp jox moom xam nga àddina loolu quoi te yàlla baax na man sama xol dafa rafet man lu ma waaye wax jégal naa la bëri naa xëtër xëtër ne amu problème lu ma waaye def wala lu ma waaye wax wala lu ma waaye tooñ jégal naa la te yàlla tax dama ab jullit laa dama koy doxee dama koy waxee papa yaa ne nag maa koy ñaanal yàlla yërëm ko rek xaar ko àjjana ak képp ku mu fekk te fóore ñoom ñëpp ay ñoom kii dëkk booy Ama Baldé bi booy Ama Baldé bi nu tudd si sax booy Ama Baldé bi. booy yëpp ay avenir lay woon waaw nee na yàlla yërëm sama nijaay sukk Diop maa ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko xaar àññal yàlla baax na daal affaire daal mu ngi noonu rek yàlla baax na l'émission tire à sa fin que l'émission tire à sa fin franchement li ma bëggoon li ñu bëggoon a wax sax waxuñu ko parce que am neex yàq na suñu émission man sax daf maa jooyloo ndax àdduna tamit ñun ay xol lañ yor nag wax dëgg yàlla ay doomu aadama lañ. di ko ñaanalaat rek encore une fois Papa Yade fi mu tëdd dàqal ko fu mu jóge ak képp koo xamante ni rek génn àdduna suñu waajur yi nga xamante ni tamit génn nañ àdduna yal na leen yàlla yërëm taxaar leen aljana wax dëgg yàlla émission bi nag mootuñ koo continuer ndax tamit nag ama yàq na suñu émission pare di ko wax tamit kàddu gu mujjoom ndax daal mooy loolu daal am neex la ngay tàggatoo. waaw sant yàlla rek. julli Seydina Muhammad sant sama ñaar waajur rek. te aw kenn kuwul samay waajur ñaan na màgg yàlla may fanu gudd ak wér gu yaram moom màgg ba dimbali samay waajur ndax ñoom ñoo tax may sonn ndax man sama yaay dafa am fu ma jaar moom fu métti xam nga gërëm sama grand frère gërëm sama soxna xam xam nga mooy loolu daal di ñaan yàlla may ñu fekki ak tal rek